Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de vous du like, merci de vous abonner, merci également du bail, des commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager une information. un box sénégalais, fait pour les maintenir 14 régions du Sénégal, à nouveau World Cup, nous sommes déjà fait. Nous sommes également à l'hôpital et sécurité de février, nous sommes bonnes c'est une bonne gamme, Ni sommes qui casse. Nous sommes également héros judiciaire, nous sommes des bonnes fois, nous sommes bonnes gaines, nous sommes des lois des Sénégal, nous sommes des droits d'honneur, nous sommes bonnes charrelles, à des firdaus, et nous, on avance ensemble dans la magie de eSport TV, l'actualité en continu. Actualité,

terrain Gaspard Camarabine bi Amitié 2 donc day am test pour les jeunes donc petite catégorie bi ah, donc nit en 2005 ba 2008 mën ngeen fa dem contact yi mi ngi souvent ah, donc gis ngeen ko xool leen bu baax def test tenter cette chance également sinon aussi gars yi ah li jëm ci CHAN bi Sénégal de recevoir Sénégal ci groupe C bi la Cameroun Sénégal Madagascar à Côte d'Ivoire ñoo daal beaucoup bokk 46 ans nag la daal Andrei Tchevchenko, qui fête aujourd'hui son anniversaire la légende ukrainienne et aussi ah, un homme <coughs> il a marqué de son empreinte son passage avec le Milan AC Andrei Tchevchenko, un véritable serial Killer ñaan ñi tamit ah donc ami pour la vie hein. donc il donc ngeen Jamal Musiala ak également Jude Bellingham ñom ñoo nekkoon doon petite catégorie Angleterre xam Musiala également il avait la possibilité de jouer pour l'Angleterre mais finalement dafa tànn def dem jouer pour la nationale shaft du côté de la Liga ki nga xam ne moy Valverde mom lañu tànn mu nekk jour du mois de septembre l'Uruguayen donc joueur de la Casablanca def mois de septembre bu exceptionnel je pense que mérite na comme Nicolas Lewandowski mérité won comme également ki nga xamné moy donc Kiri di mérité won Bono donc le gardien donc marocain mom lañu ñu mu meilleur gardien de la saison dernière c'est une fierté également pour Afrique hein, parce que Afrique ben la kenn du ko xar ñaar ñu gis sami doomu Afrique di jël ay raay yu ni mel donc l'ordre duñ def lu dal ci euh, kontaan également supporter u Wareere xam ni ngeen ko hein, ndax Karim Benzema Benzema donc match bi di ñew euh, week-end bi il va jouer parce qu'il est complètement guéri le médecin yi. Real yi donc il s'est entraîné correctement Il bi nga xam dafa de problème ci cuisse bi euh, donc euh, Benzema va devoir reprendre hein, pour également woné Qui ki di Araujo l'opération s'est bien passée actuellement il est enthousiaste dafa yàqamti euh, reprendre entraînement yi nank-nank parce que dafa bëgg dem ci coupe du monde bi donc instant dafa bëgg accélérer euh, mbir yi ki nga xam ne moom nag mbiram mi ngi accéléré mais dans le mauvais sens mooy Niko Kovac le l' entraîneur de Wolfsburg nga xam ne actuellement moom ah, ñoom ñu ngi si presque bas du classement bi dirigeant yi nag dañuy xalaat na lañuy fexe bu daal di koy dàq moom nag amul chance l'ancien entraîneur du Bayern Munich également de l'AS Monaco euh, ki nga xam ne aussi ah, xàmme ngeen ko donc le gardien de Manchester United de Gea donc actuellement war Atlético Madrid ñoo ko bëgg a recruter parce que moom contrat juin 2023 lay jeex fi ne nag waa Manchester proposé guñ ko li nga xam ne mooy donc euh, contrat ndax ki nga xam ne mooy donc gardien au black wax naa leen sànq ne waa Tottenham ñoo ko def priorité l' équipe moom ci xëtam bu njëkk war a jàll demain ngeen di ngeen ko gis mu ne désaccordé désaccordé pour wax ne xiiro riiroo réeroo dafa am ci diggante Neymar ak Mbappé depuis affaire penalty yi ñoom ak fi mu ne nii dirigeant Paris Saint-Germain yi ñu ngi def lépp lu ñu mën rek pour jëm leen a jubale pour mën a dem sooy ci Ligue des Champions ñi ñu xam tamit bëgg nañ seen àndandoo sori mooy diggante kii di Ahmad Amadou Bamba Dieng ak ki nga xam moy Igor Tudor mi nga xam ba légui il dort ki nga xam ne nag mooy Javier Ribalta di ngeen ko gis légui moom moy directeur sportif nek également ko xam il a de l'expérience dans le domaine jaar na Juventus jaar na Milan AC jaar na club yu bari mom actuellement nak nee nañ ba Bamba Dieng ñooy wax nak ak Bamba Dieng ne ko il faut que nga crever l'abcès manam il faut que ngeen dem waxtaan ak Igor Tudor nga dégg limi wax yow tamit nga dégg liñ koy wax comme ça ngeen échanger mëna démarre ñu japp ne actuellement dal Marseille mi ngi jéem xol xool na lañ fexe ba kii di Bamba Dieng gën a am temps de jeu ndax ba jox na ko temps de jeu moom nag Bamba selon li nga xam ne mooy yéenekaay bi l'équipe ak aussi le journaliste Guillaume Tarpi moom dafa wax ak ay waa njabootam ak entourage am ne leen euh, fi mu ne nii buñ bis buñ ko waa Marseille joxee chance mu dugg ci terrain bi dina def match boo xam ne ba abadan day man gars yi duñ ko fàtte ñu koy wax laf cet laf cet laal yàlla na loolu am parce que Bamba aussi est un élément clé pour man sincèrement man bokk naa si ñu gëm ne Bamba Dieng ba amee temps de jeu dafa war a départ jot nekk suñu neuf parce que il est il est car insouciant ni ma koy wax moom Pape Matar ils sont insouciants ils ont le talent et que duñu hésiter et loolu la ñu soxla tey man bu doon man comme ku nekk am nga sa gis-gis parce qu'on on n'est pas les entraîneurs c'est à lui c'est le sélectionneur mais normalement même c'est les penalties au niveau de l'équipe nationale du Sénégal Bamba Dieng moo ko war a wala ki nga xam ne donc Pape Matar Sarr gars yi nag joxe nañ seen gis-gis ci li nga xam ne mooy waxtaan biñ ne dañ koy sumb diggante Bamba Dieng ak également ki nga xam ne mooy Igor Tudor ak le point de l'actualité woo leen di like woo leen di abonné on se dit à demain on avance ensemble J'a ngeen Jeff.